dërëm kontaan nañu vraiment mais nag dañ la laaj aussi retour Kouthia noo ko gisee euh, biir TFM ndaxte moom moo fi génnoon aussi <laughs> euh, wax a wax ba doyal moo demaat encore euh, baalu àq ne dafa dafa dafa réer. dafa ji ah, tey noo noo noo ngi jàngatee retour Kouthia biir TFM wala TFM dafa neex rek ba ku dem ñëwaat. <laughs> nee naa la TFM famille la man avant Kouthia di ñëw sax nee naa leen kër la. xam nga tey jii di nga xuloog sa waa kër xuloog sa mag wala xuloog sa yaay. Mhm. yàgg yàgg da ngay dellu si waat mais xuloo taxoon na nag dërëm. ah taxoon na de xuloo bi. déedéet du xuloo Kouthia moo yor filingam te dina dofloo Sénégal Kouthia li muy def noonu loolu yëpp ci comédie la rek. Kouthia mooy comédien du peuple kon dangaa bëggoon li ñu jotee woon waa TFM yëpp comédie la. comédie la c'est le comédien moom mooy le comédien du peuple. na ñëpp nangu ni mooy suñu comédien préféré Kouthia suñu Kouthia national lu mu def ànd nañ ci Kouthia yow loo def rek yoon la Kouthia moom du ma ko wax lenn lu dul sama patron la euh, bu dee. cinq secondes sax ànd naa ko moom liggéey naa moom liggéey yu bari ci loolu muy def sama xarit la sama lépp la ba tey nii maay wax nii ah fu ma ko romb daaneel ko fu ma ko romb comme nii ma la jàkkaarloo yow caméraman bi Kouthia fu ma ko romb naa lekk vingt mille am wala cinq mille am comme xam nga sama Kouthia la Kouthia national la nañ ko ñaanal yàlla rek yàlla saxal ko fa te mu bàyyi comédie bi <laughs> te toog bëggal ñun ñoo ko bëgg Kouthia këram la këram la kër kër doo kër nag il faut mu am caat bu mel ni ku caayen saa muy dem di ñëw waaw loolu loolay neexal aar muy noon parce que namoon nañ ko waaw sénégalais namoon nañ ko vraiment euh, lu ñuy tëjee rek di la laaj dërëm say projet comme que nee nga à part télé bi aussi am nga ci yow looy yëngu à part télé bi euh, li may yëngu mooy euh, ndox du bàyyi yoonam mhm. ndox du bàyyi yoonam animation mm, bu à oreille yi ma doon def tey laa ko dàq def damay nekk ci camion yi damay nekk ci terrain bi marché yi ba démb laa jóge Tiwaawan te demoon naa Touba euh, pour fësal marque yi nga xamante ni ñooy dugg ci marché bi mhm. pas mal de produits man sama loxo mu ngi foofu mhm. dinaa animé ci télé bi dinaa animé ci suuf télé bi ndax ña ma yor njagan bu na ma xaral mat comme xar mat rek laay def man boo dooree fee door fee waaw mooy ah, doxal aar <laughs> euh, mooy doxal aar bi maa ngi ci bouche à oreille képp koo xamante ne mhm. am nga produit booy lancé soo ma woowee tey laa ko gën a mën maa ngi sama équipe dërëm essai dërëmet am nañu ay sabar am nañu ay musique képp koo xamante ne laaj nga rek lancer sa produit fesal sa produit dugal sa produit ci marché bi man je suis prête pour dugalal la ko ci bu ma kenn TikTok ci français yi <laughs>